waaw bu fekkee bu ñu déggee bu ñu déggee Cheikh Bara Ndiaye mu ne doomi daara nga te mënoo sax tari alxuraan bu jub. <laughs> waaw loolu moom da nga koy delloo moom parce que xam nga nit bu fekkente ne dañoo wax ay nit ay lenn yenn wax yi te muy dëkk argument bi ngay mën a teg pour wedd loolu mooy saaka wax ju ñaaw waaye eh, li may faral di wax rek yàlla subhaanahu wa taala eh, ci xadiisu xudsi yonent bi yontu alayhi wa sallam wax na ni nit ñi nga xamante ni dañuy wax wax ju ñaaw. nan leen bàyyeek seen wax ju ñaaw jooju mais ñiy jëf-jëf ju rafet te duñ ko wax tamit nañ ko xam bàyyi leenu loolu te mu ni mu mu ni waaw waaw mu ni bu ma taree saar bu jub ma ñëw sama parti maa ngi ko dellu si rahmaan xalamul quraan xalaxal insaan xalamul bayaan sams wal xamar naa ko delloo ci foofu gis nga nit même bu ma amul xam-xam am naa jikko ju rafet te du ma jabarkat moom njabarkat waaw man laa wax dama ne même bu ma amul xam-xam am naa jikko ju rafet duma njabarkat kan moo fi njabarkat dama sama àll dama ko liggéey ku liggéeyul àllam xaw ma de yaa ngi lancé li ma bëgg nag mooy dama éviter ci émission bi mhm. askan wi bëgg nañu xam mu leer am na lu ma jotoon wax mhm. mbir moomu dama ko tëj parce que lu tax mooy nit dangay wax a say nawle da nga jógoon jàppale Amadou Ba waam te du dëgg Amadou Ba sama xaritu benn bakkan la Moustapha Ba sama xarit benn bakkan la maa Malick Gakou sama xarit la Déthié sama xarit la Ousmane Sonko sama xarit la ànduma see kenn si ñoom sama bopp laa àndal man bala may wax nit nag kaay jàppale Amadou Ba man mii ndeyu mbir gi ma dem jàppale Amadou Ba. pourquoi nga ne ko kaay kaay jàppale Amadou Ba dinañ ci am xaalis bu bëri. loolu bu ko waxee waxul dëgg man Amadou Ba maa ko alal. Amadou Ba maa ko ëpp alal ndax alal ji ma yor muy Sëñ du jeex te du lay dund ñoom war nañoo xam ba xam man nguur tiital na ma wala tiitalu ma bu ma sañoon wala mu neex man mën naa ànd nguur ndax 2012 ba fi may waxee may contre Macky Sall te àndoon nguur moo gënoon yomb si man ànd ak opposition mais lan moo tax ma copte ànd ak opposition nekk si opposition radical ba dugg si kaso tax ñu nangu samay kër tëj sama entreprise dolli BTP maa ko moomoon lu ma am si alal foofu laa ko liggéey tey duñu tëj entreprise boobu noonu doon ma tepp ay impôt est-ce que tax na ma taxaw di ko jooy li ma dund ci invective ci nguuru mag sàll gi tey bu ñu taxaw yeneen Sénégalais yi xamul li mu dund ñu bëgg a déglu koo xamante ni xëy na li muy wax yëpp ngir intérêt boppam la ñu bëgg koo jox dëgg ci sama kow damay am lu ma naqar. moo tax duñu comprendre ak li nga dund ci injustice. voilà ba jaar ci kaso tey ñu yeewu dégg ni da nga jegeyoo ak ki nga xam mooy candidat wu Benno mais xam nga jegewoo mooy nit ba amul du nit man am naa léegi dañoo bëgg Amadou Ba mi nga xamoon dama ko xamoon bi mu nekk impôt mu nekk ministre de finance wala mu nekk maanaam ministre affaires étrangères wala mu ñàkk nekk ministre wala ni mu nekk nii tey jii maanaam premier ministre ma bàyyi ko xarit mu mu jiitu poste man damay sàmm samay xarit parce que samay kóllëre lan waaye ànduma ak moom tey ànduma mu ëllëg te bu doon candidat du ma ko jàppale te doo dégg mukk ma yëkk sama kàddu dama jàppale Amadou Ba loolu nag buñ ko waxee ñaar nga si déglu mooy ku ne xam na ne régime bi ñun ñëpp contre nañ ko pour mu jóge fi man ci ñooñ laa bokk Ousmane Sonko nit ñi bëgg nañ ko nit day taxaw koo xamante ni danaan day defaral Ousmane ko ñi ñi nga xam ne dañoo bañ régime bi ñun yow foofu nga jege pour nit ñi bañaale la sànni c'est maanaam loo xamante ni euh, pour def defar dara pour yàq nit la mais man lan moom ma tënk ci bu ma bëggoon dem jàppale leen mu tënk ma mais maa coptewul continuation bi Amadou bi woote maa ko këptiwul pour ànd ak Macky Sall xanaa loolu leer na. kon daal yaa ngi wax ci kanam ñëpp Amadou Ba sa xarit la. askanu nga fa nekkal ma wàcc sama bopp pour mën a dem pour loolu ñu may laaj ma tontu si parce que lépp dama see nekkoon acteur muy bi ñuy def commission enquête bi bokkoon naa si ci ñi nga xamante ñoo wat résolution bi yëkkute woon naa ay discours conseil constitutionnel bi ñuy euh, euh, éliminer candidat yi bokk naa si candidat yi éliminé woon bu ñuy dugg recours bi bokk naa si. bi nga xam ñu ngi wote loi bi nga xamante ne moom mooy modification article 31 bi bokk na ñu ko njëkk contre parce que maa njëkk jël kàddu Macky Sall mi yokk mandaam mi ko yokkal mandaam te mu bëggoon ko te sukkandiku ci benn décret pour éliminer li nga xam mooy convocation code électoral bi yooyu yëpp ñu waroon see waxtaan ma dem parce que ñu teg yooyu yëpp fële indiwaat yeneen débat yoo xam nga jiital askan boobu ma jiital moo tax ma déplacé wu mais askan boobu tamit ñoom wax nga toog du sa place soxluñ ko si yow ñoo ma ko wax. ah dañ la message. non du question message askanu ñoo ma ko wax laa wax xam nga askan woo xamante ni boobu ba léegi yaa ngi dégg ñuy réagir naan ma yow yow mii may wax ak yow boo ma iwte woon laaj ma si loo xamante ni lu may ñàkkal fayda la ma jóg bàyyi sa plateau bi parce que man nag aggutuma foo xam ni dan ma iwte pour humilier te fekk complot moo ko la taxaw ma ko woon mooy li am mais loolu jeex na. daw la ko ñenn ñi jàppee de. waaw ba tey na ko jàpp loolu man jàpp naa ni non non man jàpp naa ni. bi ñu annoncé ne ñu ngi dugal vidéo. yaa ngi nii iwutama yaa ngi nii iwutama émission man bu ma man du ma koy daw ku du dawal Macky Sall doo dawal keneen. wax ju ñaaw nag. jëmul fu mu dëkk fu mu jóge la ci saanu. d'accord alors honorable ñu ñëw ci li nga xamante ni moo gën a fës ci actualité bi donc xam nga ni njiital réew bi ginnaaw bu mu jëlee ndogal abrogé li nga xamante ni moom moo di invocation corps électoral plus tard gis nga taxawaay bi ngeen ci am yéen au niveau de l'Assemblée nationale. Euh, ñu jékki saax gis également euh, conseil constitutionnel acte ginnaaw ba ko euh, opposition bi jébbale ab recours ni ànduñ ci doxalinu président mu tontu daal di neenal ki nga xamante ni moom moo di président. daal di koy sant également ci mu amal élection ci nu mu gën a gaawee plus tard ñu gis assemblée également yéen ngeen génn ab communiqué pour wax ni vous êtes des républicains et que nar ngeen fas yéene ngeen sàlloo ak dogal bi conséquence ñu leen jël et fu mu nekk nii également di ngeen bàyyi lépp ci suuf ñu jëm ci li nga xamante ni moo di ubbi teb information judiciaire mais boobu lay communiqué dañ ko bind ci turu assemblée gépp ndax yow da nga bokkoon ci ñi nga xamante ni d'accord nañ ci boobu lay ci boobu lay communiqué. xam nga assemblée nationale 165 députés la mais dafa am kilifa. tey muy judiciaire justice muy liste exécutif kuy bind ci turu assemblée njiitu assemblée nationale ngay bind mooy suñ kilifa bu fekkente ni tey président assemblée nationale moom moo bind buy wax du ne en tant que président assemblée nationale dañuy maanaam moom day wax ci turu assemblée parce que moo ñu yilif aussi loolu mu wax nag bon bu ma neexee ma ne moom la engagé waaye la may wax ci respect mooy député yépp la ko waxal parce que moo moo nekk ci kaw. Euh, li jëm ci mbirum enquête parlement bi comme ni nga ko waxee mbirum loi bi Macky Sall euh, décret bi mu bi mu abrogé woon pour ah, convocation électorale ayib dafay mu ne euh, boobu lay communiqué ñoom rek la engagé. waaw mais xam nga li ma la wax rek mooy cest moom kenn ku nekk na nga ko gisee man le président assemblée nationale def te loo xamante ne day respect république bu ma ko yëgee bu ma ko yëgul. ànd na si. parce que tawul ma si ànd. xam nga lii déggoo li ma la wax de parce que man damaa xam lan mooy institution xam nga man bokkuma ñi nga xamante ne dañuy doog a dugg assemblée man xam naa assemblée xam naa réglement intérieur assemblée nationale assemblée nationale lan moo tax maanaam tey jii. bu neexee bu neexee président assemblée nationale mu woo centre bi ñu dugg si biir assemblée te kenn ñi mënu ko def. parce que mooy njiit parce que mooy kilifa assemblée nationale. dëgg la mu loolu laa ko reconnaître xam nga sa classe gi ñu si bari dañuy réer Sénégalais yi ndax na nga naan. li ma nangu loolu moo tax ñu jàpp ni. dama jege nguur gi mais jege nguur mooy lan nekk opposition day tax doo wax dëgg day tax ngay wax loo xamante ni pour yow loo yëkkati ko la te askan wi war a xam dëgg doo leen ko wax. li nga leen leen di gàntal mais man faral naa nguur kon ban tëj ma kaso. faral naa nguur gi ban tëj nangu samay kër faral naa nguur gi ban tëj samay entreprise may ko ne di faral nguur gi xanaa kon amu fu la wala amu fayda gis nga li nga xam moom la nguur gi bëgg ci ku leen di waxal dëgg te dëgg du leen ko may opposition bëgg maanaam ku leen di jàppale si ay fen du ma leen ko may fi ma nekk si dëgg mooy askan wi nga xamante ni war nañu di xam di yëg askan woowu ñoo ma gënal junni yoon politique bi ma nekk lu nu war a xam tam leer dinaa leen ko wax bu fekkente ne nguur gi fi nekk muy état bi dañu def loo xamante ni dafa méngoo ak yoon dinaa wax ne lii yoon la bu méngutoon dinaa leen di yoon bu opposé bi defee loo xam ne dëgg la dinaa leen dëgg bu du dëgg. dama leen faral nguur gi ngay wax nii sax biñ biñ yàgg suspecté. te ba tey ñenn ñi di ko suspecté je dirais tout le monde am na ñu gëm ne ba tey yow opposant radical ga mais même bi nga amee jafe-jafe wax ci yenn kàddu ci président ba duggoon ci ci li nga xamante ni moom moo di kaso ba li ngay wax ni am ci après ay yëg ci ay ay impact bu baax a baax say entreprise mu tëdd yu nu mel am na tamit ñu wax ni jege bi nga jege ba tey ak ñoom moo tax yàggoo fa itam gaaw nga ñu lijjanti say biir nga génn. ah xam nga yàggoo fa kon weer kon weer ku am weer kaso 100 mètres kon du am na ñu fa gën a yàgg. mais am na ñoo xam ne ñoo man maa leen fa gën a yàgg àddina noonu la am na ñoo xam ñoo fa gën a yàgg am na ñoo xam fa gën a yàgg loolu la am na ñoo xamante ni dañ man ñoo ndax bi nga nekkee fa da nga doon def ak ñoom pour sa génn man sëñ bi samay mbir yàlla laa ko bàyyee sëñ Tuubaa mii sama sëriñ yàlla nangu naa nattum bi ma nattu bu dugal ma fa ba ma waree génn génn naa dem naa nga ñëwaat naa Tuubaa ñëwaat naa nekk député bokkoo ak ñu doon rus naa ko parce que foofu ñu baax ñëpp jaar na fa Cheikh Bara bi nga nekkee bi bi nga bi nga duggee kaso ba génn Cheikh Bara Ndiaye dugg kaso ndax da nga bokk si ñu dox médiation bi pour ñu mu génn parce que bëri nañu koy ruumalaat dégg naa sax ku mel ni Moustapha Dramé di ko wax. waaw wax dëgg yàlla dox naa ko dox naa ko wax naa si def naa si ba mu génn loolu laa doon sauvé te man ak suñu Bass Abdou Khadre. Mhm. waaw joué nga ci joué nga ci rôle bu majeur. mooy li ma war man dama nekk nit koo xamante ne lépp loo xam warawat na nga def jullit war naa see taxaw ak ba duntu jullit ndax sénégalais nga pour que lépp loo xam ne moo la dal ma war koo def mu ngeen parce que loolu man mission la boo xamal ni ma jaami yàlla yii lépp loo mën si taxawal di leen ko taxaw d'accord alors euh, assemblée nationale jamono ji ñu jëm ci ab information judiciaire kenn mënu wax ni la durée bi fii ak fii la war a yem jàpp nga ni dina yomb wala jàpp nga ni enquête parlementaire bi xëj na. moo waaw xam nga boo xoolee tey assemblée nationale dafa am ay règlement yu ko tënk mooy li ñuy wax règlement intérieur assemblée nationale mi ngi nekk quatre-vingt-dix-huit la ndax dañ see yokkoon. Mhm. quatre-vingt-seize la woon ñu yokkaat si ñaari article ba ñetti article mu àgg quatre-vingt-dix-huit ba quatre-vingt-dix-neuf article. Mhm. article bu nekk dafa am loo xamante ni moom lay wax ci loo xam mooy loi nekk loi organique loi organique bi da lay yóbbuwaat ci li nga xam mooy constitution bi. ci article 41 dafa wax ni lépp loo xam ne dafa jëm ci mbirum moomeelu réew mi walla administration bi am na sañ-sañu ay député jóg def résolution pour ñu demaat enquête parlementaire enquête parlementaire bu ñu ko demandé dafay jaar li nga xamante ne mooy conférence de bureau conférence de président ñëw commission jóge commission ñëw plénière plénière boobu mooy nekk résolution bi ñuy def mm-hmm. bu ñu defee résolution par dañuy rectifier ci résolution bi tur yi nga xamante ni ñoom ñooy membre commission de enquête mu war a nekk fukki tour ak benn bu ñu fa jógee ñoom si tur yooyu si bopp ñoom ñooy dajee nag si benn bureau salle réunion pour ñoom ñu taxawal seen bureau day am président day am vice président day am rapporteur day am rapporteur général lii mooy li nga xam mooy composé bureau bi. Hmm. bureau boobu nag da leen jox délai six mois war ñu ko passé daal di ñëwaat ci article 44 bi ci règlement intérieur ni képp koo xamante ne ni Sénégal nga nit ga article bi am na compétence ñu woo pour que déglu la mais loolu règlement intérieur ensemble na boo ñëwee si code pénal ak code procédure dafay wax ci mbirum suus yi suus bépp bu man di doon kenn amul sañ-sañu woo la di la déglu tant que amuloo autorisation yi nga xamante ne moom mooy seen kilifa yi te ñoom rek ñoo war a déglu sax suus xam nga muy ñaar yu bokkul. Hmm. kee joxe na sañ-sañ. mu règlement international mu article 44. mais code pénal cour pénal joxe na sañ-sañam. Mm. kenn ku nekk yaa ngi ci sorol rôle. ndax séparation de pouvoir la mais séparation de pouvoir boobu dañoo gën a jox doole tey li nga xam mooy judiciaire parce que judiciaire mën na jàpp député te député mënul enquête li nga xamante ne moom mooy justice. ah kon enquête parlementaire bi ba fa mu doon mujjee itam bu doon wéyal nañ ko. du dem fenn parce que li tax mooy <clears throat> ñoom lañu sukkandiku seen droit bi leen pour que ñu bañ a dem fenn. te kenn mu leen ndax si enquête mënul topp nit ni ko da lay tëj la man mooy enquête génn rapport am rapport bi tamit dañu ko léegi ñaara maanaam assemblée nationale plénière kese moo mën a joxe ndigal <coughs> est-ce que duñ ko siiwal pour ñëpp mën sa jot kese ñoo koy am. kon pourquoi ngeen forcé. ubbi li nga xam moo di moo di enquête la ñoom ñu ko def xam nga loi lu mu di mel ak lu mu mën di metti metti ak lu mu mën di daj luwaa la ñoom am nañ sañ-sañ bi def nañ ko. si si am na seen sañu bi ñu am def nañu ko Macky Sall li nga xam moom la ko yoon may def na ko léegi nag mu jëm ci li nga xamante ni mooy information judiciaire parce que boo jëlee si article 48 bi nga xam ne moo ñu may ñu ubbi enquête parlement information judiciaire boobu. Hmm. ci ko wax ni ko. waaw dernier bi bépp siis boo xam ne dañ la tuumaal nga déposé plainte procureur de la République ubbi si wala siis bi ubbi si information judiciaire automatiquement enquête parlementaire bi day daanu hmm. loolu moo tax. bi seex di eh, benn siis ci siis yi bi leen tuumaale mu def li nga xam mooy plainte déposé ko fa. Mm-hmm. ministre de la justice yónnee woon na parce que juróom benn fan ci ginnaaw. Mm-hmm. lettre bi nga xamante ni moom mooy wax ni procureur wax na ni ubbi naan information judiciaire li nga xamante ni maanaam moom mooy plainte boobu noonu. d'accord léegi nag information judiciaire fan la jëm <coughs> kan la ñuy visé parce que dafa def plainte contre x ab député mun ñu ko déglu. mun ñu ko topp mun ñu ko tëj tànk mi ngi nekk député lu dul flagrant délit ñu flagrant délit boobu noonu encadré wuñ ko te jamono yi may wax ak yow heure boo xamante ne tey benn juge wala benn procureur demandé na pour ñu libérer leen député pour dindi malaanu kiraayam naa day lànk. mais lu tax dans ce cas là euh, <coughs> ngeen foncé. ngeen ma sachant tout cela ngeen foncé malgré tout pour retarder les choses ndax kon euh, stratégie bi moo nekkoon loolu c'est-à-dire retarder les choses pour que pour que au final ñu jëm ci ay report et ku mel ni Karim Wade mun a bokk ba tey ci. xam nga man rapport d'accorduma si sowetuguma ko ànduma si wat bi d'accorduma si projet bi. mais yow seetaan naa la nga taxaw assemblée taxawoon assemblée. loolu war a jëm ci ay. ci enquête parlement bi dama jël kàddu. boobu dañ ma tooñ xam nga damay tooñ Karim Wade tooñ Sonko tooñ Bougane tooñ ñu taxawal benn kuréel boo xam ni pour que àq bi ñu yoral ñu delloo ñu ko ñun loolu la doon xeex bu bindoon benn lettre boo xam ne mu turé mu ne ko initiateur bi pour déposer ko bi ñu demee ba gis na teg Macky sàll ñoom kuréel gi parce que dem woon mais kuréel gi dañ leen a tënkoon ni leen dem leen ngeen wuy ji bu ngeen demee lii leen bëgg ñu wax si Macky la mu wax mooy le 10 conseil constitutionnel mënu see deltu ginnaaw man bi ma xamee loolu ba engrais parlement bi ñëwee